ci biile àdduna saa su jafe-jafe dikkalee ñaari pexe képp nga ci am bi ci njëkk mooy nga jàmmarloog jafe-jafe saafara mbaa nga ni nem bàyyi yooyu mën la foofee la ñaari jëm yi toll nguur Xalil ak ndaw si Elisa kum semin et tu sais bel et bien que 5 ans c'est pas 5 mois ni 5 jours ni 5 heures ni 5 minutes ni 5 secondes ni 5 tiers regarde mon fils ne veut même pas te voir mon fils ne veut même pas te voir je te déteste je te déteste ma vie. Cette personne m'a bousillé la vie. Cette personne, elle a transformé ma vie en enfer. Et cette personne ose reste là ce soir pour me manipuler de nouveau ou pour me tuer. wax ma nan laa lay baale damaa bëgg nga leeral ma nu ma lay baale yow mi ma yaakaaroon yaakaar ne boo soqalikoo ba taxaw sama coono jeex yow mi këpp sama yalwaat. Khalil mënuma laa baal. Elisa, je ne te reconnais plus.

ay papa papa bul wax loolu papa man yow rek laa dese ci àdduna papa baal ma ngir yàlla <laughs> papa soo ma bàyyee moom fan laa jëm. nit bañ na sebet ndax wey waaye weñu ko ko gën bañ moom ma cay dee xam naa ni sama jikko nga ma bàyyee waaye maa la ko gën a bañ man mi muy sànq saa su ne by góom yooyee